suñu tànk tey doodul euh, comme sénégalais yëpp nuñ ko defee rek maanaam mooy ñoow di masaw président d'abord ci combat bi nga xam ne que sénégalais yëpp ko moom n'est-ce pas en même temps di indi benn cadeau bi nga xam ne que suite aux événements waa Pastef Chine xool nañu day gis ne que vraiment euh, jumtuwaay la bi nga xam ne dina ko mën a utiliser ci ses besoins en termes de massage donc lal boobu la ñu indi woon ci turu Pastef en même temps ñëw masaw ko ci turu Pastefu Chine n'est-ce pas euh, mën a wax aussi ci yenn yi nga xam ne que yiiteel na Sénégal yiiteel na Pastef Chine donc moo waraloon suñu tànk yi tey. waa dañu ñëwoon ngir li waa réew li fee feeñal suñu yéene li daal réew mi yëpp kenn ci doomu réew mi ñu koy bunduxataal xataal te euh, lu daal kenn mel na nu ñun ñëpp la war a dal looloo tax ñu ñëw feeñal suñu yéene indi it teraanga joo xam ne li nga xamee ne moom lañ doon jooytu ba di ko wax ñu indi lal boo xam ne dana lal buy mën a def multifonction day mën a def massage. mën a jël sax euh, yenn xarale yu yees yëpp mën a jël son man nga mën ci ranger mën na nekk sax euh, table de bureau am wifi mboolem xeetu xarale yëpp lal bi ànd naag moom maanaam daal lal la boo xam ne nii bureau la lal la dëkkuwaay la. koy ni ko tàmm di defee rek ndax bi ñu waxee ne dem ci mbay mi indi nañu matériel agricole bu doy mm-hmm. bi ñu waxee ne lii gàllankoor na ko andil nañ ko lal boo xam ne nii mën na ko defal massage mën ko defal yeneen yoo xam ne sax séentuwuñ ko ci woon. ndax xam nañ li leen war fañ nekk it bu ñuy wax don de soi foofa la foofa la bale ndax Sinois yi kenn ku nekk xam nga leen ci bëgg seen réew nekk ay ma réew nekk ay patriote léegi rek li ñuy wax mooy dañuy wax ñeneen ñi ñu roy Pastef Sine ci wàllu don de soi lépp loo xam ne sa candidat soxla na ko parce que dafa am loo xam ne yow yaa ko fa mën a fare ba ko soxla ñu taxaw ci comme noonu. loolu rek lañ mën a mais pas Pastef Sine parce que ñoom déjà xam nañ ñu leen war te ñu ngi ci. donc euh, on est venu pour euh, li nga xam ne xew na ci réew mi te vraiment ñëpp xam ko donc masawu le président Ousmane Sonko e l'encourager encore ci combat bi nga xam ni boo xoolee bu baax euh, bëri na des militants des sénégalais yu nga xam ni ci la ñu donc nekk di daal di xeex pour l'intérêt du pays donc loolu grosso modo mooy li nga xam ni moo ñu taxoon a jóg. saafoonte ak ñoom encouragé e que lépp nekk rek pour l'intérêt du pays Sénégal daal avancé ci anam yi nga xam ni vraiment bëgg nañ ko réew mi donc loolu moo nekkoon sunu tànk yi fii nii tey